wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri man abaat mbokk yi Touba marché Ocass waa daayira Nuuru Daarayni Touba ca kanam ci njiitul sëriñ Habibullahi ibnu Cheikh Mahamadul Fadal ànd ak mboolem membre Touba ci kanam ci njiitul sëriñ Abdoul Fatah Gueye ñoo ngi yëkkati kàddu nuyoo yu sell di ko jëmewaat ci yéen te mooy jëmewaat ko ci boppam ndax nee na lii nga xam ne moo dal ci kaw waa marché Ocass ci kaw daayira nooru daare ni Touba ci kanam la dal ndax mbooleem kantin bu fi lakk wala mbaar mu fi lakk membre Touba ca kanam moo ko lakkale kon day mel ne lakk gi lépp ci kaw Touba ci kanam rekk la dal rawatina nag bi nga xam ne daayira bi léppam mi ngi jëm ci suufus Touba ak niti Touba te lii dal ci suufus Touba dal ci niti Touba loolu moo tax sëriñ Abibu ànd ak délégation bi ñëw fas yéene ànd ak yéen bokk ak yéen tiis wi ne du aw naqar ndax ab jullit bu ko yàlla tegee am nattu daf ko war a muñ te rafetal muñ ga ndax yàlla ku mu dimbale dootoo lot te ku mu dee ci yow amul keneen ku la mën a dimbale ginnaawam te lépp lu def teg ko ci sa kaw ma lay xool ci sab xool ba xam danga ko muñ te bànneexoo ko sant ko ca wa ilaa doo ko muñ te lii dal ci seen sunu kaw bu ñu ko xoolee ñi mu dal ci seen kaw tañ tàbbi ci ndox mi te ay bakkan yu baree bari dem ci nga mën a dem ci génn kër wañi ca fukk ñu faatu dem ci benn dëkk waññi ca ñaar fukk ñu faatu ñooñu buñ jotoon ci alal ju lakk te jotaat ci seen bakkan moo gën ci ñoom kon ab jullit day nangu dogalub yàlla te gëm li nga xam ne war nañ ko cee jëlee ci am jàngat ginnaaw bi ñu nangoo ne nattub suñu borooma te yii xew yëpp suñu borom da ciy jëflanteeg doomu aadama yi kem tolluwaayu sabab yi ndax xam nañ ne léeg-léeg ñu gis ci yoon wi accident bu am ay bakkan rot dañuy def constat ginnaaw bu ñu nangoo ne yàlla ko dogal jàngat lan moo waral accident bi. jële ci ay jàngat ngir war cee jële ay jubbanti ak i joyanti ba nga xam ne danañ mën a sabablu ba bu ëllëgee bu dara xewetee ba bu ëllëgee lu mel noona lu mel noona ñu mën a mucc ci biir loolu nag ni ñu xamee Sénégal ni ñuy doxee xam nañ ne massa li leen dal metti na li ñu koy dégg Sénégal bari na Sénégal réew mu bari massa la lu tax loolu mooy li fi am ci ay jëya ñaare bu amee danañ defalante maslahante waaye duñ ci jàngat duñ ci tiré ay conclusion duñ ci def ay joyanti yoo xam ne dana tax bu ëllëgee ñu mucc ci lu nu mel ndax marché bii du tey la njëkk a lakk marché yeneen yi ci def du tey la njëkk a amuk lakk xëy na bii day bi ci gën a metti waaye nag jàppees na ne bi yoon buñ ci jógee danañ defaat ay jàngat danañu waxtaan danañ defi joyanti foofu nag li ciy ëpp solo bu ñu bëggee mu doon loo xam ne luy am njariñ la mooy lu ñu fi mën a def xalaat yu fi mën a teg nañu fexe ba buñ koy def ak di ko teg ñu ànd ko ñu ko bokk ñëpp ñu ko séq ñu waxtaanee ko ndax aw nit boo leen bëggee jëlal décision te doo leen ca boole leneen loo jël danga nga jàppal ne da nga leen di contre waaye defarul kon bala ñoo jël benn décision ak bu mu mën a doon nañ ci séq waxtaan ak ñi ko séq ñëpp ba ci marchand ambulant yi nga xam ne ñi gën a looru ci mbir mi ci la ñu bokk dañu leen bàyyi xel faw dañoo war a am volonté am pas-pasu jóge fi nu ne tuxoo fi jëm fu ko gën ndax kat wax ne Euh, bopp bu rëy tey metti bu tuuti te sedd ko gën marché bi ku nekk xam ne ne bopp bu rëy la woon waaye da doon metti nag kon jubbanti ko jayanti ko defar ko day lu mënta ñàkk day lu mënta ñàkk te loolu dañ ko war a xam dañ ko war a nangu mbedd mii ñu toog di waxtaanee am nañu ne 28 mètres la boo ko nattoon moo tax sax ñuy wax 28 bi bële ndax mbedd mi moo kon continué dem ba 28 loolu moo indi 28 mbeddum 28 mètres bu fekkente ne jamono bu nekk boo ñëwee doo fi mën a dox ak sa tànk loolu problème d'organisation la ñëpp xam nañ ko am na ñu wax ne courant moo lakk marché bi waaye bu dee courant tamit dafay fekk marché bu jaxasoo mu dimbali ko ba tax lakk gi am waaye euh, mbedd mi tey mbokk yi bu fekkonte ne dañ ko bëggoon a ci sama xalaat bu gàtt boo tàllalee 28 mètres yi nga génnee ci juróom-ñetti mètres yi 8 mètres yi nga xam ne mooy jëmmi tali bi wet bu ne da nga bu nekk mën nga faa génnee benn 3 mètres mën nga faa génnee ab 5 boo xam ne day tàmbalee ci magasin yi nga natt 5 mètres tàmbalee nattaat benn 1 mètre def ko cantine mu jàkkaarloog magasin yi nga nataat beneen mètre 50 def ko cantine mu jàkkaarloog tali bi nga nataat beneen 2 mètres diggante cantine bi ak tali bi 10 mètres yi mat sëkk nga def ko ci côté bi def ko ci côté bii ci yaatuwaay bi nga am ci 2 mètres nga xam ne lu gàtt gàtt juróomi téeméeri cantine yu am 2 mètres sur 1 nga ko fee placer organiser ko def ci courant def ci lumière def ci ay caméra de surveillance def ci lu mu laaj ci wàllu cet ak wàllu sécurité ba pare def ci ay espacement yoo xam ne ku bëgg a dem ci magasin yi mën cee dem ci liberté tali bi nga mën koo barrière ba dem beeg dikk bi mën a jàpp ni waaye loolu faaw ñu am volonté ndax nit ñi bu ñu leen bàyyee ci seen kattan ak seen xalaatu bopp ñuy defaral seen bopp seen i mbaar kenn ku nekk na nga ko jàppe rek noonu nga koy defaree ak na mu jàppandee ci yow bu dee installation courant bi tamit kenn ku nekk ni nga jàpp ne noonu nga mën a installé rek noonu jaar na yoon jaarut yoon foofu la say moyen tollu te loolu nga am moo tax am marché kenn bàyyi kenn ku nekk di defaral boppam bu dee lu jëm ci mbedd mi dañ koo war a organiser defar ko ba noppi jox leen waaye foofu tamit boo gisee ma doon wax léegi naan nañu jiital waxtaan ñi ko séq ñëpp bokk ci bis bu ñu demoon ba koy def ndax déguerpissement jaar na fi gis nañ la mu jur gis nañ fa mu mujje bis bi ñu demee ba koy def nañ ci ànd ak ñi ko séq ñëpp ñu bokk ci waxtaan ba dëppoo ci lu ko mooy mën nañ koo tàmbalee defar politique dugg ci ñu wër a dem ci seeni loxo jël ko bàyyi ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo te fii ñi nekk xam nañ leen xamante nañ ci suñu biir ambulants yi xamante nañ boo gisee nag may joxe misaal ci mbedd mi fi la lakk gi amee te xëy na jafe-jafe bi ëpp fii lay xewee donte sax marché bi bari na yeneen problème bari na yeneen problème d'organisation ndax euh, sénégalais ni mu baaxoo dundee dafa nanguwul espace maanaam ruq bu bëtam xaj bu nekk day jàpp ne dara dafa war a dugg wala dafa war a teg dara te fekk ne ci wàllu sécurité espacement dafa war a am ndax foo xam ne dañ fay lijjanti ay milliards nga xam ne économie région de Diourbel bépp fii la concentré wu foofu daa a am sécurité foofu daa war a am kaaraange xel dafa war dal waaye waruñ koo bàyyi rek muy deme noo xam ne jamono bu nekk ñun ñëpp ñu fi nekkoon xamoon nañ ne lii xew moom manoon naa xew moo tax xew na waaye bettu kenn ndax jamono bu nekk xamoon nañ ne lii buy buy xew dana metti te bis bu mu xewee tamit metti na waruñoo bàyyi nag ba ëllëg si biir yàlla ñu yàlla musal waaye lii waratuta am ngir ñu ne waratuta am nag lii tax waratuta am lépp dañ koo war a def te buñ koy def ñu jëm koo defee ci aw yoon Euh, du ma wax ci turu Touba kanam tey ndax sëñ Abdoulahi Mbacke moo ciy wax waaye jàpp naa ne kuréel gu mel ne Touba kanam bu àndee ak autorité locale yi li ñu bëgg a jubbanti ci wet googu danañ ko jubbanti te kenn du mer kenn du gaañu ndax li li doy waar ci ab jubbanti mooy fekk ay nit ci mbir ñu cay liggéey ba sëxëñ ca yàgg ca lool nga xëy xëy rek bëgg koo damm di dindi ko bu boobaa yàq ga day bari coow la day bari te da ngay gaañe te la ngay def du sotti lu ñu mën a def dañoo war a jiital ne dëkk bi du dëkk boo xam ne am xëy yomb na fi Sénégal gépp xëy yomb fi rawatina Touba kon dañoo war a fexe ba ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci marché bi rawatina ambulant yi ñu fexe ba protéger leen ba seen liggéey boobu mën a wéy di dem waaye nag ñu nas ko teg leen ci condition yoo xam ne dinañ mën a jaaru yoon man dem naa ci dëkk boo xam ne ci réew moo xam ne ci àdduna bi mbedd mu mel ni dañ koy mbaar ay poto yi 15 mètres la ñuy taxawal def ab gablin bu rëy ca kaw nga xam ne naaj du la laal boo ci duggee ci biir ñu organiser ko këyit bu wadd nit ko mën naa ne te investissement la boo xam ne ku ko fi mën a investir tamit du investissement bu amul retour bu am garantie lay doon ndax boo fi defoon ay cantine tey cantine la ñuy fay mën naa yor sécurité bi mën naa yor set gi mën naa yor lépp bu boobaa nag la may proposé moo ñu taxawal ab comité de gestion boo xam ne mboolem acteurs yi ko seq ñoo cay bokk dugg ca di ko gérer lu ca waay bëgg luñ cee defak ak luñ cay dindi foofa lañ koy waxtaanee ba dëppoo ci. noo ngi jéglu guddal gi eh, di jeexale nag ci man mii di wax nga xam ne ma maay président wu association Touba ca kanam li ma koy wax bariwul maay donga bi euh, ba noppi bokkaat ci mbir mi xel yu bari danañ xalaat ne waaw Touba kanam ci nan la ko war a jàppalee ñu bare bari ñu ngi koy wax ñenn ñaa ngi koy laaj ñenn ñaa ngi koy wax ci kaw di ko wax ci suuf man ñi nga xam ne jot nañ cee wax ak man Touba ca kanam nag waxagu ci waxtaan woo xam ne dañoo dajee ñoom ci seen bopp waxtaan ci waaye benn nat yi koy wax ba mu agsi ci man li ma leen wax mooy Touba kanam alali ñëpp li xew ci ñëpp la dalandoo tey Touba kanam ba muy doog a li ñu waxoon mooy dajale alal yi liggéeyale ko sëriñ bi ci dëkk bi loola nañ ci wéy ndax lii am natt la bu fi jaar xëy na njëkkayu fii te mujj ci tabis bu buñ ci seppee kenn di ko ca dimbali mën naa yàq yoon wu ñu wuñ woon di ci dox loolu ëpp naa xalaat kon nañ wéy dox rek te wakkilu ci yàlla te doyloo sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon nag ñi ngi ñëw ci turu mbooloom Touba Kanam di massawu mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi yëpp waaye ñi nga xam ne ñoo fi yàqule ñëpp sëriñ bi ñëwoon na fi ci bis bu njëkk bi bi xew-xew bi amee ñëw xoolal boppam gis ginnaaw loolu sa yëpp laxat mi ñëwal na fi boppam ginnaaw loolu nag ñu ne nañ àndandoo ginnaaw bu waxtaanee ci lan moo war a doon suñu taxawaay ci lii xew ci lañ àndi jéego yi ñëw ngir wax leen ni noppi nañ ngir ànd ko ak yéen ginnaaw buñ ko ànd ak yéen ci sunuy xol fas nañ yéene ànd ko ci sunu ànd yéen ci sunuy xel ak sunu jëf di wax ni mbir mi yàlla sunu borom moo ko indi mooy atte ay dogalam waaye alhamdulilah bi ñu xamee ne nattub jullit day yokk ay maqaama mbaa muy sippi ñaawteef bisub xiyaama ngir ñaar rek lay mën a doon benn bi muy nattu nit ki ngir yéege ko mu toll foo xam daf ko war a dépassé mu yéeg bu dee koy dox ci yoonu yàlla la wa mu def loo xam ne nii du warteefam mu nar koo yàqal yàlla sunu borom nattu ko ngir fanqal ko loola kon ñaar lay doon sanction lay doon wala promotion te am nañ dalu xel ak rafet njortu ci ne xëy na lii am promotion la war a doon ci yéen ndax ñii fi nekkat xëy na ngir yàlla ak jëmmi sëriñ bi moo leen fi bàyyi ndax ay jullit lañ ay taalibe lañ kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di masawu di ko ànd ak yéen di ko tiislu lool ndax xam na ni metti na mettit wi itam dañuy jël ki gën a mettile yamale ko ki nga xam ne moo ci gën a néew la ay mettit bu ñu ko mënoon a wax def ko muy benn yóbbu ko ba fa aw fu aw tiis mën a yegg waaye di ko sante yàlla li nga xam ne noonu la ko Cheikh Mamadou Mountakha waxee te ñun ñëpp mu nekk suñu kanam di suñu référence euh, bu ñëwee rek dañ xam bu wir ne mënoon na fay gën a metti mënoon na fay gën a tiis ñu war koo sant yàlla te jaajuwaat ci jàngatewaat ci nag lan moo war a doon suñuy taxawaay bu ëllëgee te loolu du Abdou ju junj na ko léegi moom yàlla dogal na mooy président association Touba ca kanam ni mu ko waxee bokk ci ñi gën a mettile ci xew-xew bii am ci marché bi. liñ ciy sant yàlla itam xëy na ñi ñim xewale moom lañ ci gën a jonjool waaye biñ ko jegee xam fu mbir mi toll ci moom daf noo delloowaat ci yàlla nu ndax gis nañ ne ngëm yàlla gu mat sëkk. ak ngor ak dëgër gu mat sëkk la ci boole ñu jël ab àtteem nag jooyal ko ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi yàqule yëpp rek dalale ko sunum xel ndax bi ñu demee këram di ko nemmeeku way juram wu jigéen wax nañu ne bi mu biñ ko wooyee ci guddi gi ne ko marché baa ngay lakk mu jógee këram ñëw ne fi ba nga xam ne lii xew ci kanamam la xewee moom bi muy ñëw kantinam euh, magasin tàkkagul bi mu fi nekkee ba waxtu julli fajar jot nam ko daan defee dafa taal otoom dellu ca kër ga jiite leen fajar dellu siwaat ñëw ci marché bi continuer di ànd ci pexe yi mën a def ngir mën a indi saafara mbooleem itam ku ko doon masawu dafa mujj ba moom li diis ci moom du li xew waaye masawu gi nit ñi masawu ni ñu ko yërëmee moo mujj nekk problème ci moom kon moom ab atteem la ñuy jox mbooleem ñu nekk ci marché bi di wax ne loolu lu mat a sant yàlla la ndax nit lépp lu mu yàqule te ngëmam yàquwul diineem yàquwul na xam ne yàqulewul dara Touba Ca Kanam nag taxaw na ngir accompagner leen ci lii waaye ci anamu ànd ko ak yéen ci kaw njëkk a tàmbale ci fexe ba lu ni mel dootul am incha allah ndax loolu moo ci gën di farata ak fexe ba lii nga xam ne nii moo xew ñi mu dal ci seen kaw mu woyof tooy ci ñoom loolu nag mi ngi ko fas yéenee def ci ay xalaat waaye ak ci dox ak wax ak jëf dafas ko yéene ànd ak yéen ba genn juyoo du ci am Abdou Fatah mi ngi ci biir mbooleem ñi yàqule mi ngi ci biir Touba ca kanam su fekkoon ne doonu ci dara it bu ñuy ñëw ci délégation bi noog moom nooy ànd bi mu ci doonee dara itam nga xam ne ci ci gën a métti la bokk noo ànd ci kër sëñ abi bu ñëw fii kon dana nu mën a représenté ci biir mbooloo mooma lépp luñ fa xalaate ak luñ fa nose ak luy tax mu jàpp ne euh, buñ ko defee mbir mu ne mel dootul am te dana indi ak yokkute ak kaaraange ci biir marché bi bu dee wax la bu dee lu ñuy def la bu dee lum mën a doon pare nañ pour ànd ko ak yéen incha allahu taala ndax loolu mooy taxawaayu Touba ci kanam ci dëkk bi loolu itam mooy taxawu Touba ci kanam taxawaayu Touba ci kanam ci marché bi ndax ku ne Touba xam nga lan la fi marché Ocass di représenté ci wàllu économie ak mbooloom dëkk bi ak njabootu sëñ Touba gi fi nekk te di fi yëngutoo. kon daal ci ab tënk loolu mooy l'essentiel bi li nga xam ne moom la ñu sëñ bi yónni woon ci ay tànkam ak ci taxawaay ak ci teewaayam ak teewaayu jëwriñ yëpp fas nañ yéene daal ubbi suñuy bunt ubbi suñuy nopp di déglu ak ànd yéen ci biir lii. ba ñu waxtaan ba tënk xoolandoo ne marché bi kat lii buñ ko ci defee incha allahu lu ni mel mënati naa bañ a am lii itam buñ ko defee ñi nga xam ne amoon nañ ciy jafe-jafe ku ci delluwaatu ba yokk fa nga nekkoon itam fam la fekkoon itam dara du yées ca la nga amoon. incha allah pare nañ pour ànd koog yéen ci lépp waaye fas ko yenee togg ba mu ñor ci ay xalaat ak dox ak wax ba nga xam ne buñ ko defee la ñuy def dana am njëriñ incha allahu taala. mi abi jaayi xayri ma nabaat